asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu maa ngi lay fay nuyu di nuyu bokk taalib yi bokk jullit yi ñuy topp ci Touba Vision euh, di am mbégte di am ak bi euh, di am mbégte itam euh, amal jataay bi ci lu jëm ci màggalu poroxaan gi ci lu jëm ci poroxaan ci boppam ci lu jëm ci lépp loo xam ne aju na ci soxna maam jaaratullah kon daal loolu mbitt la ci man lool euh, ngeen dalal ma ma mën a indi sama kem kàttan euh, ay leeral ci lépp loo xam ne laaj ngeen ma ko. waaw loolu lu wér la ndax Porokhane dafa ràññeeku te communication euh, li tax mu gën a dox gën a tasaaroo gën a yaatu nit ñi gën cee bàyyi xel mooy su jëmee ci lu ràññeeku. te poroxaan dafa ràññeeku ndax ni mu ràññeeku mooy ko fa tëdd muy soxna maam jaara Tuubaa maam jaara Buso ndax mooy jigéen ji nga xam ne mën nañ ni ci àdduna man def naa ay recherche ci internet gëstu naa laajte naa waaye daal gisaguma jigéen ju am bis bu toll ne bii mu am muy màggalu poroxaan gi ak wàccuwaay bi nga xam ne am na ko ci xolu nit ñi xolu jullit ñi xolu taalibe ba ñu baree bari ay junni junni junni ni daanaka mën nga ne kër taalibi murit boo dem fekk fa turandoom bari na sax ñu dul taalibi murit yeneen taalibi eh, yeneen tariixa yeneen kër yi diine ñoo xam ne dañ koy tuddee doom kon nag loolu day wane ak ràññeeku ràññeeku googu nag moo tax ci wàllu communication nit ñëpp di bàyyi xel su bisam bi eh, jubsee nit ñi di ko bàyyi xel eh, di ko waxtaane di ko tudd di ci def ay jéego ngir gën ko yaatal ngir gën koo tasaare ndax poroxaan dafay ndamul Sénégal ndax ni ma ko waxee ku am bis bu ràññee noonu jigéen euh, jenn jigéen amul bis bu toll ne bii mu am te muy ab sénégalaise dëkk Sénégal euh, poroxaan nekk Sénégal loolu ndamul Sénégal yépp la jàpp naa ne sax waroon nañ ko sax gën a gën a jox dayo bu ëpp fi bii ñu ko jox rawatina ci ci wàllu état bi ci wàllu euh, média yi ci ci ci ci anam yépp waaye daal euh, dëgg lañ am na gëdd ko jox euh, waaye war naa sax gën a weesu foofu ndax soxna jaar moo ñu toll toujours damay euh, fàttali wax ci Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne tey mooy xalifab Cheikh Mamadou Bachir ci kaw suuf jiitu njaboot gi day wax rek ne nun waa kër sëñ Basiiru ñeewuñ kenn ci li ñu sëñ bi sédde waaye nag li ñu sëñ bi sédde yéene nañ ko ñëpp yéene nañ ko bokk ak ñëpp toujours da koy da koy da koy wax loolu nag mooy yaatu dënn mooy doyloo li nga am waaye yaatu dënn ci nangu ko bokk ak ñëpp te su dee particulièrement poroxaan xam nañ ne maam jaara ma fa tëdd mooy maam yi ñëpp waaw ginnaaw mooy maam yi ñëpp nag ñëpp ko bokk waaye nag dafa di sëriñ Touba moom aw doxalinam ñi ko xam xam nañu kenn ku ne daa am lu mu la sédd kenn ku ne am waar wu mu lay bayloo kenn ku ne am lu mu lay liggéeyloo te njabootam bi seex yeeg ñëpp kenn ku ne am na euh, lu mel noonu waaye rawatina njabootam gi njabootam ji kenn ku nekk am nga loo ràññee ko loo xam ne te ñi ci des ci njabootu Serigne Touba gi ñëpp dañ la koy nangul ñëpp dañ la ciy jàppale dëgëralal la ko te loolu nag mooy moo dëgëral yoon yi ba mu agsi fii kon kenn ku ne cër ba nga am ñi ci des ñëpp dañ la koy nangul mu neex leen te ñu lay ñu lay jàppale ci dëgëral cër boobu loolu la moo waral kon Euh, intolérance mënta am ci ci ci lu jëm ci poroxaan euh, mënta jóge ci njabootuk Serigne Bassirou mënta jóge ci geneen njabootuk Serigne Touba gi ginnaaw euh, menn maam mii la di maam Jaara Bousso moo fa tëdd ñun ñëpp ñu bokk ko naam Cheikh Cheikhul Khadim Serigne la ko féetale ndax moo ko ne newoon dama bëgg nga dem poroxaan xeeñtul ma barab ba te wétt li sa maam ndax sa maam nee na dafa wétt kon Serigne Touba moom ku yàgg yittewoo poroxaan la ak foofa soxna si tëdd nee ñu sax ku fa masaa jóge ci zone yooyu rek Saalum euh, faaw mu laaj la ndax euh, jaar nga ca poroxaan ndax ginaar yaa ngi fay sab di euh, di ñewante ba xam dëkk ba gentul wala déet kon loolu mooy wane ne yàgg naa woo te bi soxna si nelaw ñu ko fay denc fa la ko fekk ndax su ngeen su dee su dee histoire la rek booru ci la fa njabootu Maam Mor Anta Sali ñëwoon fekk si Maba Jaxu Ba mu woowoon leen ñu ñëw di ko jàppale si ci jihaad yi mu doon def euh, bañoon ceddo yi fayu ci kilifa diine yi ci réew mi taxoon mu dajale leen foofa Maam Mor ne ko moom man mënuma dëkk ci pays ndax ñooro booba mooy pays bi mooy capital bi mënuma dëkk ci capital ndax damaa yore ay donga di leen jàngal di leen yar te capital dafay rëbb kon faw ma wut feneen mu ne ko kon demal euh, poroxaan nga dëkk foofu muy à huit kilomètres de Nioro kon foofu loolu mooy histoire bi ñaari at lu matul ñaari at lañ ci teg soxna si wàcc liggéey foofu te Serigne Touba fi mu doon jànge euh, la jóge fekk si leen Poroxaan kon loolu lépp fa la ko fekk euh, loolu nag day wane ne euh, Serigne Touba moo. sàkku yitteel gu ko soxna si yitteel ñor gum ko ñor soxna si am wéttal ñor gum ko ñor dëkk ba euh, doonub dëkk moo tax mu tànn ci doomam yi muy Cheikh Mamadou Bachir mu tànn ko ne ko demal wéttali sa maam ndax euh, daf ma ne dafa dafa wét euh, loolu moo tax sëñ Sëriñ Bachir bu ñëw Poroxaan bi mu fay ñëw aw yoon sax amu ko ndax bi mu watiir karosu fas bi dugg ba agsi euh, daanaka dañ doon takk sax ay làmp ci ngeer yi ak yoon wi ngir ñu mën a xamaat fan la yoon wi jaar bañ mën a àgg ñooro kon ci condition yu méttee metti la fa la fa doon demee ba mu fa demee itam euh, guddi ga mu fa njëkk fanaan euh, ci ci bitti rek la fanaan moo ñi àndal ñii di jàng alxuraan ñii di zikkar ñii di jàng xasaayit waaye ba mu xëyee dafa ne fii di fas naa yéene mu mel ne Touba te booba euh, condition yi ma wax noonu la dëkk ba mel doo daanaka doonu dëkk booba kon nag amoon na gis-gis bu sori vision bu soree sori ci liggéeyal Cheikhul Khadim lii mu ko liggéeyloo ci soxna si ak ci dëkk ba loolu moo tax mu def fa këram euh, woo fa njabootam di di ci soññi njabootam ngir dëkk ba doonu dëkk dëkk ba wétaliku soxna si wétaliku loolu moo taxit mu woote fa màggal nee ñu euh, mi ngi tàmbali 1952 la ko tàmbali woote ñu màggalu poroxaan gi nga xam ne nee ñu màggal bu njëkk ga daanaka benn gàtt ba bañ ko reyee daanaka ci lañ màggal màggal ga yëpp kon euh, condition yi dëkk ba doyoon na waar waaye nag euh, vision ak nangul Serigne Touba liggéeyal ko li mu ko liggéeyaloo tax na mu jàpp ci bañ a bàyyi euh, ñaax ci njabootam ñaax ci taalibeem ba ndànk-ndànk ñu commencé sañc ndànk-ndànk ba moom euh, lañ lañ njëkk defara defari xabru ba ay seng lañ ko wërale 1966 la nelaw Serigne Bassirou waaye avant muy nelaw mool woon na sax ay mool yu bari ngir ñu tabax tàmbali tabax xabru waaye loolu jot ko eggale sunu borom def coobareem ci moom mu wàcc liggéey 1966 taawam bi di Cheikh Moustapha Bachir moom moo euh, moo ne ngéej àggaleel sëriñ Bassirou naalam yooyu ak liggéeyam boobu ko sëriñ Touba doon liggéeyloo moo tax mool yooyu moom nee na moom li njëkk a def ci xabru ba euh, àggale ko euh, tabax ko ñu soppi ko fi ay yoon nag ba nii mu mel tey euh, Cheikh Moustapha Bachir itam moo fa moo fa rëdd juma euh, tabax ko ba ba nga xam ne euh, Cheikh Mourtala ko ubbi ñu julli ko man mii di wax ak yow bi may dem Poroxaan xam naa ne soriwut 1974 booba dëkk ba jumaa ji àggugut soreegut sax Euh, booba courant amu fa ndox amu fa daanaka yoon amu fa tali tali amagu fa dara amagu fa dëkk ba lu ndaw a ndaw ndaw la ba ci pénc mi da daan nawet da daan sax ay ngeer ak i ak i ak i mbuumum nduur ak yu baree baree bari yoo xam ne euh, soo soo soo dundee loolu ba gis dëkk ba ni mel tey da nga xam euh, vision bi sëñ Basiru doon wax da nga ko da da nga ko mën a gis loolu kon mooy mooy mooy mooy mooy histoire Porokhane te mooy taxit euh, njabootu sëriñ Bassirou euh, Serigne Bassirou da leen ci da leen ci condition yi dëkk ba dafa metti metti waaye boo ne ñun ña fa nekkoon man am naa fa juróom-ñetti at bi ma doonee tout tànk di jàng euh, condition yi mettiwaay ba tar ga xam xam naa ko ndax dund naa ko maak ñu bari ñu may déglu samay bokk ndax njabootu sëriñ ba sëti sëriñ Basiru yu bari muy doomi sëriñ Muntaxa doomi sëriñ Cheikh Astoufal doomi sëriñ Moussa Basiru doomi sëriñ Abdou Hakim ñu baree bari ci njabootu euh, doomi sëriñ Basiru yi fa lañ nekkoon di jàng ñu leen fay tàggat euh, kon xam nañ euh, jafe-jafe ya fa nekkoon ak dëkk ba fa mu tolloon waaye nag njabootu sëriñ Basiru ngir li mais bëti Serigne Bassirou ak yéeneem moo tax ñu xar seen tànk tubéy sonn ci sonne ci euh, di ci ñaax nit ñi ngir nit ñi di ñëw di sanc di fa wut ay dal euh, fexe ba tali bi ci jamono Cheikh Moustapha Bachir tali bi ñëw fexe ba courant am fa fexe ba forage yi ñu yokk ko fexe ba loti si gën a loti si dëkk ba nit ñi mën a am fuñ fuñ fuñ gën a fu ñuy dal ak yeneen ak yeneen ba ci fondation Mame Diarra bi xëy na loolu danañ ci dikk kon daal loolu mooy évolution dëkk bi waaye ni loo xam ne njabootu Serigne Bassir ñoo ko taxaw ba mu agsi fii waaye nag ni ko Cheikh Mountakha waxe saa su nekk cër la bu ñu Serigne Touba cërale waaye nag cër la bu ñu doyloo lool waaye cër la nag bu ñu yéene bokk ak ñëpp. waaw dëgg la communication bi nga xam ne moo dolleeku ci euh, màggalu Poroxaan gi moo di ne euh, Serigne Isaaxa Bassirou euh, di rek Serigne Mouhamadou Mountakha ak Serigne Fallou. Euh, mu Cheikhul Bachir euh, bi moo dafa am liggéey yu mu nekkoon dafa nekkoon ambassadeur senegal ci bitim réew euh, mu mujje Turquie bi nga xamante ne ñibbisi na Serigne Moustapha naka jëkk dafa yéene woon liggéeyaloo ko ci fondation Mame Diarra Bousso dénk ko ci ay liggéey ndax Serigne Moustapha Bassirou moo taxawal fondation Mame Diarra Bousso ci 1999 muy fondation boo xam ne daf cee jublu nos gën a nose eh, ndonol soxna jaara ci li nga xam ne soxna jaar da ko fee bàyyi ak ñu koy defal soxna jaar lépp ñu tënk ko ci fondation bi di ko doxal eh, njabootu Serigne Basiiru eh, yore ko di ko di doxal liggéey bi kon fondation boobu bi ko Cheikh Moustapha Bachir taxawalee ca at yooya fondation bi ci la tabaxe kër maam jaara gi ci poroxaan muy kër goo xam ne njabootu sëriñ tubaa gi ñu soxee ko ci Mamour Anta Sali sax lay wax ñëpp nañ am nañ fa waaye am nañ fa dal boo xam ne ku ñëw ñu ubbil la mu doon sa kër soo dee siyaari sa maam muy soxna jaara ñu am foo dal man man ko siyaare euh, fondation bi itam moo yeesal xabru maam jaara bi euh, ci njiital alaaji àll seen moom la ko sëriñ bi dénkoon fondation maam jaara itam moo tax wax taxawal daare maam jaara xëy na dinañ ci dellu si kon loolu lépp ay liggéey la yu fondation bi def kon naka jekk euh, Serigne Moustapha Bachir dafa bëggoon Serigne Isaaxa su ñibbisee jàpp ci liggéey bi liggéey fondation bi ngir gën ko dëgëral par rapport ak expérience am ak xam-xam ak ak xereñam loolu moo tax Serigne Isaaxa itam jéego yi njëkk a jéegi moo di ne nañ gën a yokk communication bu jëm ci liggéeyub fondation bu jëm ci liggéeyub daaree maam jaara ji loolu moo tax mu ne nañ taxawal cellule de communication donc mu dénk ma ko man boo xam ne seen yitte mooy euh, la ñuy def ci aw yiw sénégalais yi bokk ko yiw yi ñëpp bokk ko nañ fexe ba di ko fësal di ko wane ngir ñi bëgg def lu baax xam ne buntu defu aw yiw a ngi nii ndax euh, aw yiw euh, suñ ko seddoo ci lay gën a tee baax yiw bi juddoo poroxaan juddoo ca daare maam jaare ji ñëpp war nañ ko yëg ba ñëpp war cee mën a def seen loxo ndax seen jariñ lay doon man amila saalihan fa li nafsihi kon loolu moo tax euh, jéego yi sëñ Isaax njëkk a jéegi moo di nañ taxawal cellule de communication te cellule de communication bi nañ ko jàppale ci taxawal benn forum euh, de communication tuddee ko forum Maam Jaara bu ñuy def poroxaan ñetti at a ngi nii at mu jot danañ def tànt bu mag boo xam ne ca jàkkaarlu xabru maam jaara bi boo xam ne dañ fay def ay conférence di fa def ay exposition di fa def ay panel di fa def ay débat euh, loolu lépp ak yëpp ay projection de film loolu lépp ngir activité culturelle bu dëgër ñu yokk ko ci Euh, activité yi daan am ci màggal gi xam ngeen ne màggalu poroxaan màggalu diine la màggalu jaamu yàlla la màggalu ñaanal soxna si la màggalu siyaare soxna si la dañ fay jàng ci ay kaamil alxuraan kenn xamul nu mu toll lañ fay jàng ci xasaayit lañ fay yëkkati lañ fay durus loolu lépp mooy màggal bi bernde yi soo ko ñëw waaye nag sëñ Isaaxa ne nañ ci yokk activité culturelle bii nga xam ne ci wàllu communication yi itam dana gën a yaatal liggéey moo tax kon ñetti at yi yëpp ñu taxawal fa forum Maam Jaara boo xam ne euh, mbooloo mi dañ fay ñëw di fa euh, di fa dafa jariñu ñu leen fay berneel ci xam-xam muy berne roox muy lu am solo euh, loolu moo taxit bi ñu ko defee ñetti at yi mu ne ren ji balaa màggal gi ñëw nañ ci def benn Dakar kon mooy première édition bi ñu def Dakar. Euh, objectif forum Porokhane bi moom mooy màggal gi ay centaine de milliers de personne ñoo fay ñëw di màggal si di siyaare si si di soxla nag ku leen berndeel ci aw ñam ak i xéewal waaye di soxla ku leen berndeel ci ruux ak xam-xam kon loolu moom saa su nekk dañ koy soxla. moo tax euh, jataay yooyu daan am poroxaan day wéy di am ren sax am na lu yees lu ci dugg loo xam ne daayira yi sëti sëriñ Basiru yi muy naf si wa diini nga xam ne mën nañu ci la bokk euh, euh, décidé nañ lënkaloo ak liggéey bi ñu sëñ Isaaxa liggéeyaloo ba organiser ci àllarba ji à partir de 21 heures benn conférence bu mag boo xam ne mooy conférence yi sëti sëriñ Basiru yi conférence boo xam ne dañ ci dalal bokk yi dalal ci taalibe yi waxtaane poñ yu am solo mooy nan la ñuy def ba ndonal Serigne Touba ñu sàmm ko te ak ban responsabilité la am ci sàmm ndonal loolu mooy thème conférence ren bi kon loolu lu am solo la kon loolu day wéy day wéy di continuer exposition yi ñu fa daan def ak ci alxemes jaag àllarba jaag alxemes yëpp dana am ay exposition ay conférence euh, ak xam xamle ci daara ji daara yi maam jaare ji bu baax a baax a baax nit ñi xam ko loolu lépp day wéy di am forumu Dakar bi li tax seriñ Issakha xam ni nañ ko organiser moo di dafa gis ne euh, daaray Maam Jaara Serigne Moustapha Bassirou mi ngi ko ubbi 2005 tàmbalee ko ci 450 Maam Jaara amoon yéene ci ne nombre daayira Maam Jaara yi nuñ toll war nañoo am nombre Maam Jaara yu mën a nekk ci daara ji bu toll noonu te jamonoom 1400 à peu près Maam jaar daayira Maam jaar ñoo amoon kon mu ne woon daayira daare ji moom war naa mën a am 1400 jëm 2000 maam jaar yu fay jànge waaye nag mu ne nañ tàmbalee ci cinquante di yokk ndànk-ndànk bi mañ cay àgg waaye ñu tàmbale ci cinquante moyens yi nga xam ne ci la fondation bi sukkandiku ngir yore daare ji dolli ko ci moyens yi président fondation bi te tey Serigne Mountakha di président fondation bi moyens yooyu mi ngi jóge ci daayira maam jaar yi carte maam jaar yi ñu dagg Sénégal daayira bu nekk sa membre bu nekk dafa war a dagg carte 2000 francs ci at bi euh, carte woowu mooy euh, li ñuy dajale bitim réew euh, dana ëpp loolu waaye bitim réew ñoom it carte Maam Jaara yooyu dañ koy dagg daayira Maam yi fa nekk su ko defee loolu la ñuy dajale sëñ bi boole ci la mu am ak bonne volonté yi jox daara ji ci la ñuy yor daara ji lu mat 13 million la ñuy dépensé fi mu ne 13 millions de francs par weer weer wu jot waaw maam jaare yi nekk ci daara ja amul dara lu war seen wayjur ca ñoom du du koddaay du lekk du dara ba ci létt sax dañ leen koy warlul ca daara ja ku leen di létt ku leen di wéttali muy ndey daara yi kuy kuy baleeka nettoyé fañ seen i dëkkuwaay kon lépp lépp lépp fondation maam jaare moo leen koy warlul moo leen koy defal ba sax su ñuy dem vacances bu bari seetlu nañ ne xale yi dañuy trist ndax bëgguñoo jóge ci daara ji te loolu yéeme la ndax daara moom saa yoo fa masaa bëgg a jóge da dangay da ngay da ngay bég da dong daara yi jaar ci daara yëpp xam nañ loolu waaye maam jaar yi suñ vacances jotee kenn du bëgg ñibbi daanaka ndax ñoom niñ bëggante seen biir ni ñuy wettalantee waaye conditions yi ñu leen yore ñu ci bari ci ñoom mënuñ ko amuñ ko seen kër kon loolu mooy li yore daara ji te loolu gis nañ ne euh, ni sëñ Moustapha bëgg woon daara ji di yokkoo am na gàllankoor ci ne suñ amul moyens yu bees yuñ dollee lii nga xam ne moo fi nekk lii fi nekk moom dañ ko bëgg sàmm dëgëral ko muy daayira maam jaare yi ak carte 2000 yi ñuy dagg loolu moom luñ lu war a sax ndax moo yore daara ji fi mu ne lu fi taxaw loolu ko fi taxawal waaye nag dañ ci bëgg a dolli ay pexe yu bees lu mel ne parenage maanaam koo xam ne yow xëy na amoo fa doom sax nga ne daal lii ñuy def liggéeyal lislaam la liggéeyal réew mi la ndax maam jaara muñ formé def ci yow alxuraan def ci yow jikkoy soxna jaara gox ba nga dellu faw loolu nga tasaare ko ci sa ci ñi la wër sa njaboot ci ñi la wër ñëpp loolu nag su yàggee réew mi jariñu réew mi lool lay doon kon nag euh, ñu ne euh, képp koo xam ne bëgg ngaa jàpp ci liggéey boobu mën ngaa ne na sasoo di pare ne am maam jaara téeméer dërëm par bis ndax seetlu xayma nañ ni téeméer dërëm moo mën a yor ci dund ak yooyu am maam jaara par bis muy 15000 francs par weer su ko defee su la neexee ngi jël ci benn ba plusieurs ab dayre sax mën na ne daayira maam jaara wala beneen dayre mën na ne man kat mën na maa sasoo am maam jaara wala plusieurs maam jaara wala ay maam jaara daayira maam jaara yi ñoom su leen neexee ñu ne carte maam jaara yi 2000 yi suñ ko daggee ba noppi euh, nañ ci dolli jël menn wala ñaar wala ay maam jaara ab famille sax mën nañ ne une famille une maam jaara famille bu lëmm ñu ne ku am weccet ci bis bi na ko dajale ba ma téeméer ci bis bi suñ ko dajale ci weer wi joxeel ko muy muy muy parrainage mel na maam jaara ba ci ba ci association yi ba ci euh, entreprise yi loolu lépp lu lu war a mën a nekk la kon ngir développer loolu ak contribution volontaire ndax parrainage bi rek yemuñ ci waaye contribution volontaire ndax nit mën na ne man kat mënuma am 15000 francs yu ma joxeele ci parrainage bi waaye mën na ma am 5000 francs par weer kooku itam ubbil dañ koy ubbil bunt contribution volontaire mu ko mën a mu ko mën a mën a joxe kon loolu lépp daal euh, la bi gis ne fu mel ne Ndakaaru bari na ñu bëgg lu baax bari na taalibi Sëriñ Tuubaa bari na jullit yu bëgg a def lu baax ci rawatina ci alxuraan waaye xamuñ fuñ koy def xamuñ yoon wuñ koy jaare kon nag lii nañ fi def loo xam ne organiser fi loo xam ne muy forum Maam Jaara dajale ci nit ñi leeral leen daara ji nu muy doxe histoire daara ji lu ko tax a jóg njariñ li li mu am ci réew mi résultat yi mu am su ko defee wan leen itam bunt yi ñuy jaar ba jàpp ci liggéey bi muy parrainage muy contribution yi loolu moo waral kon forum bi nga tàmbali comme dañuy tàmbali tàmbali bu nekk faaw mu amee gàllankoor ak i jafe-jafe euh, waaye li am solo moo di lii ñuy def ak yow nii tey waxtaan wi ñuy def bokk na ci bunt yi nga xam ne may ngeen ko ngir ñu gën a yaatal gën a siiwal liggéey def nañ yeneen jéego ndax def nañ bande annonce boo xam ne mi ngi daw ci télévision yi mu ngi daw ci média yi ci internet def nañ conférence de presse boo xam ne euh, ñu bari dégg nañ ko yëg nañ ko def nañ ci Facebook publicité boo xam ne euh, lu mat deux cent mille personnes gis nañ ko deux cent mille sénégalais gis nañ ko kon loolu yëpp ay action la yoo xam ne euh, def nañ ay affiche ci dëkk bi Dakar yoo xam ne day euh, fésal kii bi joxe nañ ay flyers kon loolu lépp stratégie de communication la boo xam ne def nañ ko waaye nag ni nga ko waxee rek xëy na yéene ji ñu am ci gën koo yaatal gën koo leeral moom suñuy moyen ak suñu euh, délai yi ñu am mayuñu ko waaye nag def nañ le maximum ba jàpp nañ ne ñu baree baree bari yëg nañ ko te ñu baree baree bari danañ ñëw su ko defee su loolu dana nekkum jàng ci ñun ba beneen yoon ñu gën a tendre vers la perfection dëgg la àgg ci perfection doomu aadama mënu ko waaye nag ñuy gën a tendre ci gën a jëm ci gën a baaxal gën a defar. waaw forum bi euh, ñaari ñaari aspect la am muy aspect information muy fexe ba nit ñi xam euh, lan mooy daaree maam jaar yi ci Porokhane xam aspect yépp xam nan lañ ci dugale seen loxo waaye beneen aspect bi mooy aspect mobilisation de fonds euh, anglais di ko wax fundraising. Euh, ndax ci njàlbeen gi rek muy ci bëccëg suba gi moom activité libre la activité libre mooy maam jaar yi nga xam ne poroxaan lañ jaar ba mokkal alxuraan nekk Dakar tey ñii di jàng ñii di sëy ñii di liggéey ñooñu dañ leen di dajalewaat solal leen ñooy wàcce kaamil yi ci suba gi ab lim danañ ko fa wàcce ay jigéeni kese ñooy wàcce kaamil su ko defee itam danañ teg ci écran géant ay récital de Coran maam jaare yu ndaw yoo xam ne ci daara ji lañ jóge danañ leen indi ñuy tari alxuraan yu neex tajwid bu neex danañ danañ ubbi exposition itam ay images yoo xam ne bëgg a gis promotion yi fi jaar ak euh, maam jaar yi gañe ay prix ak ay neexal ak yooyu yëpp da nga da nga gis loolu même kaamil yi nga xam ne maam jaare yee ko bind seen loxo danañ ko exposé nit ñi ci ay table nit ñi di ko gis loolu mooy mooy suba gi activité libre dana am ay kuréeli xasaayit lu mel ni ahlul minan war nañoo war nañ faa def prestation incha allah waaye cérémonie officielle bi ci ngoon bi lay tàmbali 14h30 incha allah su 14h30 jotee danañ def ay projection wu film danañ def ay panel ay plateau yoo xam ne day mel ni plateau télé euh, am ay journalistes toog di laaj ay boroomi xam-xam plateau bu njëkk bi day jëm ci daara ji ci boppam ku mel ni soxna maam Awa Dem muy directrice des études sëñ Ablaye Diakhoumpa nga xam ne euh, bokk na ci ñi yore wàllu discipline bi ak euh, ay enseignante ak ñoo xam ne ay maam jaara yu nekkoon ci daara ji ba nekk ci leneen léegi danañ ñëw ak ay parents maam jaara ngir def ay témoignage wax seen expérience daara ji lan la jariñ ak yu demee noonu su ko defee danañ def itam beneen plateau boo xam ne euh, atelier scientifique boo xam ne ay borom xam-xam yu mag ku mel ni sëñ Xaadim ku mel ni sëñ Sam Bousso ku mel ni sëñ Adama Diouf inspecteur Adama Diouf ak ñeneen ak ñeneen ay borom xam-xam danañ dajaloo def benn lël boo xam ne waxtaane euh, problème mu yar ak jàngale ci Sénégal daara maam jaare yi maam jaare ji nan la ci indee solution nan la ci indee pexe nan la ko saafara te nan la ñuy lawale loolu saafara soosu nan lañ koy lawale ci Sénégal yëpp loolu danañ nekk atelier scientifique boo xam ne danañ def restitution bi moom it ci ngoon bi incha allah dana am itam euh, panel boo xam ne fundraising la fundraising bi mooy dana am bagage yu am am solo yuñ foo wane yoo xam ne par exemple lu mel ne tableau yu rëy yoo xam ne day mel ne àlluwa maam jaar yi bindal ci seen bopp fusti bi zarfila sanat bind ci fusti bu rafet ci mbind mu rafet moo xam ne danañ ko jaay vente aux maanaam ña fa teew ku mu ci yitteel rek ci anamug nag jàppale daara ji waaye du ne dañ koy jaay ngir lii la war a jar wala lii mooy njëg gi waaye dañ naan eh, jongante daal ci liggéeyal maam jaara ci daaraam ji muy ay bagages yoo xam ne dana am ay tableau yu rafet ak ay kaamil kaamil yu maam jaara bind ci seeni loxo ñu defar ko jafaro yu rafet moom itam danañ ko fa def vente aux enchères nga xam ne kii dinaan mën naa ci ñaar fukki junni kii ne man naa ci ñeent fukki junni kii ne mën naa ci 300000 ba nga xam ne moo ci ëppale lu mu ci joxe ci anamug nag jàppale liggéey bi rek su ko defee loolu incha allah dana fa am loolu mooy doon fundraising bi lépp delluwaat ci liggéeyu liggéeyu daara ji nga xam ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo ko moo ko jiite. jërëjëf xanaa di leen euh, gërëm di leen sant bu baax ci euh, bàyyi xel gi ngeen ñu bàyyi xel ci xam ne liggéey bi ñoo ko bokk ñoo ko seq ndax euh, liggéey bi Serigne Touba sëriñ Serigne Mountakha bi muy woote ci liggéey bi gis ngeen bande annonce bi woote gi mu ci woote dafa wane ne lañ fay def lépp yëkkati ak wane mbiri Serigne tubaala rek kon nag moom Serigne Mountakha woo na taalibe yëpp woo na jullit ñëpp ñëw fekk lañ fay def ànd kook ñun. Euh, safoo ko te xam ne ku fa jóge da nga xam da nga jariñu incha allah kon ñoo ngi ciy woo mbokki taalibe yëpp mbokki jullit ñëpp di leen gërëm di leen sant rewlu leen nu sant Soxna Jaara ngir moonu